aousubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ala wa ashaabihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seetaan ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di masaw coono ñi ngi leen di balu àq di ñaan yal nañ yàlla boole jéggal ñu ngi leen di ñaanal fu waay mën a nekk yal na yàlla sàmm ko aar ko aar njabootam defal ko tawféex ñu ngi nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ndokkeel kilifa diine yi di leen ñaanal yal na yàlla jàppale leen ñu yóbbu yan bi fiñ ko bëgg a yóbbu di nuyu njiitu kër gi suñu DG di ko nuyu di nuyu ay njabootam di nuyu képp kuy xëy ci Mourchid TV ak Mourchid FM ñu ngi lay nuyu di la ñaanal gudd fan ak wér yàlla sàmm la sàmm sa njaboot di beral nuyoo ak ziar suñu imaam di ko nuyu di ko ziar di nuyu ay njabootam di ko ñaanal wér ak tawféex yàlla sàmm ko aar ko yokk leeru dënnam te guddal fanam defal ko tawféex eh, di beral nuyoo ak ziar suñu invité suñu invité wax ko ci kaw boo paree waxal sa bopp sa ñaanu ñetteel ci kaw ñu dégg la ba xam ne yow la boo ñemee rek <laughs> di beral nuyoo ak ziar soxna Xadi ñu ngi koy nuyu suñu invité di ko dalal jàmm di ko masawu coono di ñaan jéego yi mu jéego yëpp yal na yàlla def ko <laughs> jéego yiw te yàlla defal ko taw feex ñu bàyyi imaam rek mu nuyoo su noppee ñu jox soxna Xadi mu nuyoo imaam bismillah hmm. waaw bu dee dëgg si yow moom tey dina am ñu kontaan ndax ñi rang moom bëri na pour doon ñetteel bismillah dé bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi bi nicmatihi tatimu saalihat wa aska salawatillahi ala yaasubi alarwax mm-hmm. wa manbai wal anwaar sayidina muhammadin ibni abdillahi wa nourihi wa ala kulli alihi wa ashaabihi wa xulafaayi wa rida allahi alxaalidi an jamii almuminin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam wa rahmatullah moom roqee ñu ngi lay nuyu te di nuyu ñu nga nuyu ñëpp hmm. ñaan yàlla sunu boroom tabaraka wa taala hmm. moom mi nu may nu dajawaat ci plateau bi mm-hmm. lépp lu ñu fi wax rek yàlla na jur njëriñ yàlla nañ ko yàgg fekke fekkee mm-hmm. yàlla nañ ko yàgg a tal di beral nu yoon ak mboolem soppe yi nga xam ni ñoo sopp Mursi TV mm-hmm. sopp itam émission yeete bi di ko seetaan di ci woote di joxe seeni xalaat yal yàlla doon leen tawfiq doon leen yiw doon leen xewal maam Roqe ñu ngi nuyu suñu sëriñ. Mm-hmm. suñu responsable moral suñu wasila Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy mm-hmm. Ahmed Al Maktoum mm-hmm. ñaan yal na yàlla dolli ko wér dolli ko sutura dolli ko xéewal yàlla gën a guddal fanam wi yal na yàlla mottali yéeneem yëpp def na dëgg dëgg njaboot ah tey nag am invité de mark <laughs> Adja xadi ba ah. dinaa waa yëmbal xadi ba la ngeen a ah. waaye dañ naan ko ajaa xadi ñang bokk ah. boo demee parcelle dañ naan xadi ñang boo demee Italie waaye boo demee nag moom fële ci ñoom Oustaz Diaga ñoom xadi ba la ñuy wax yàlla ko fi yàlla ba amiin yaa rab te itam ñoo lool ci jotaayam bi mm-hmm. ndax ñëw nga sa kër mm-hmm. amu leen ko dul mm-hmm. te moo waxoon ne ko ba jàppale na ko jàppale ci ñett mm-hmm. benn bi mooy Irshad mm-hmm. benn bi mooy TV benn bi mooy kade yi yaa ngi ci ñett yëpp kon nag doom nga ca Irshad yaa ngi ci kade yi xale yaa nga ca te yaa ngi Mourchid maam Roqeya kon nag sunu xel dal na ci bu baax a mm-hmm. baax. xam naa bu ci kanam yi dool ñu dool ñu yëpp. macha allah soxna Xadi ñu bàyyi nga nuyoo ba noppi ñu doog a mm-hmm. tàmbali. macha allah. bismillahi mina seytaani rajim. Mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. mbokki musidtee bi. ñu ngi leen di nuyu bu baax. di am kontaante bu baax si. ñëw bi ñu ñëw si yéen ah waaye nag di jiital si nuyoo bi suñu responsable moral mi nga xam ni moo waral di moo ko <laughs> ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel ak lépp lu mu am ah di ñaan yàlla yal nañu yàlla dugal si biir kaaraangeem ndax ku mu dugal si biir kaaraam kaaraangeem rek nga mucc kon yàlla nañ ci yàlla dugal ci barke yonent bi ah di nuyu nag auditeurs Mourchid TV yëpp. Mm-hmm. ak auditeurs yi Mourchid TV yëpp. ñu ngi leen di nuyu. ah di nuyu suñu DG. sëñ Makhtar Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. ah di nuyu suñu imam bi mm-hmm. imam Samba Diop ñu ngi koy nuyu. di ko ziyaara. di nuyu suñu doomu ndey suñu nuroo waale suñu seex. soxna Roqee Ñaŋ ndax li mag ñiy wax rek lu yàgg dëgg na. yaakaar naa ne boobu ak léegi léegi mu mat 40 ah, ba tey ñuy ànd te dara ñaawul. Mm-hmm. yal na yàlla yàggal ànd bi. ñu ngi nuyuwaat ñëpp daal di siyaare waat ñëpp naa ñu yemale foofu kàddu yi rek ba ci kanam. jërëjëf jërëjëf soxna Khady jërëjëf imam <laughs> ñi ñaan yal na yàlla yàggal ko lëre te yàlla sàmm te yàlla wat yóbbante rek suñu nuyoo suñu ziyaar yëpp ci seen kaw nuyoo nuyoo soxna Kiné bu baax nuyu soxna Kiné Tiwaawan mm-hmm. ñaanal leen wér ak mm-hmm. tawféex di leen yóbbante suñuy nuyoog suñu ziar mm-hmm. nuyu maam Mbacke Wade bu baax di ko seet yal na yàlla saafara yaram bi nuyu bàjjanu émission bi soxna Faatu nuyu mbooleem waajur yëpp ñi nga xam ne ñi ngi topp émission yeete bi comme niñ ko baaxoo di defee yeete bi pour yéen la penc mee ko tax a jóg ñun ak yéen ñoo ci bokk yam di ci waxtaanee valeur yi nga xamante ne rek moom la tuddoo la chaine de valeur lañ wax kon ñu fi waxtaane rek ca lay waat ci yéege boobu yal na ko yàlla def matale ko fépp mu saawaan baawaan mel ne rek tey delsiwaat nañ comme ni ñu ko baaxoo di defee defe naa ne li ma wax keroog rek ñu ngi ci atam ñi ngi ci weeram ñi ngi ci bëccëgam ñi ngi ci fanam moo moom lépp Serigne Cheikh nee na moo moom lépp moo moom guddi yi moo moom bëccëg yi muy sangu-sang yi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa képp ku am anniversaire rek ñaan nga ci barkeem ñaan ci leeram yàlla defal la ca tawféex mm-hmm. kon su aylee lee ñëpp war ko ndokkeel mm-hmm. comme nag moo fi nekkal ñëpp kon ndokkeel ko du jeex mm-hmm. te moom lañ ñu doon gàttandu moom la ñu doon màggal guddeem ci ndigalu sang bu tedd bi su suñu kilifa kenn ku nekk ak sa bunt ñun nag suñu bunt Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha ci ëttu Cheikh El Khalifa ci wasila ci di suñu wasila di suñu yaakaar tey ak ëllëg gàmmu na ca kursu ba dalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam nee na ren juróom-ñaari yoon la kon ku nekk na bàyyi xel ci limub juróom-ñaari yoon yooyu mu jàkkaarloog yonent bi wax koog moom koo tungoom mu sut la maam Cheikh daa waxoon yonent bi yóbbante ko mu dem wa kafallahul muminina al xitaal sëriñ faa ñëw di gàmm di gàmmu ba ren mu wax ak yonent bi juróom-ñaari baat mm. kon juróom-ñaari baat yooyu mm. yal nañ yàlla taas ci barke bi mm. waaye nañ ko càmbar ba kenn ku nekk la nga ci aju ci leer ak ci mbég ak ci mbaax ak ci lépp nga jël ko damay wax gàmm gi moom mm-hmm. dafa dafa rafa raxas jikko yi ba mu set duy lu ruux yi ba ñu fees dell ak leer ñi nga xamante ne ci côté social ba ñu yaakaaroon ñu jàppale leen ci ba ñu am ci ndam ña jaaxle woon ñu dindi seen jaaxle ña nekkoon ci nattu ñu ñaan yàlla mu teggil leen ko ñi nekkoon ci problème ak yëpp yàlla teggil leen ko kon gàmmu gi ay tombi tomb la yu dul jeex du xaaj mm-hmm. kon nag ndokkeeloon nañu bii passé ubbi ko mm-hmm. tey ñu fa yéene ndokkeelaat ñu bàyyi imam su noppee ñu jox suñu yaay daara su noppee yéen tamit ñu ngi leen di xaar ñu bare woote nañ keroog nag ne ndokkeel bi émission bi dafa gàtt mhm. dafa gaaw a jeex mhm. waaye nag ndokkeel gi la rek ki mhm. aye la ki ka moom la ki ñuy tudd la ndax ka gàmm ji ak ka mu waxal ak ña teewe ca gàmm ko ak lam fa wesaare moo tollu noonu kon kenn mënu koo jeexal imaam bismillah ah. euh, jërëjëf soxna Roqee jërëjëf soxna Xadi yàlla suñu boroom moo maye te yemalewul hmm. waaw yàlla moo maye te yemalewul ku ne hmm. yàlla la may waaye nag li may Seydina Muhammad dafa bari hmm. maam Cheikh Al Maktoum dafa ni yonent bi may gi dafa ëpp ma ne ko ak yow <laughs> yàlla ko naddil rek waaye nag may Seydina Muhammad ku ko bëgg a jëriñoo mhm. il faut nga am kilifa gu la orienté teg la ci yoon mhm. boo amee kilifa gu mat kilifa mhm. mu orienté la teg la ci aw yoon yooyu am na lu la war mooy nga sawar tey sellal te jafandu waaw wa sawar lii wa def lii wa am lii wa tay lii wa bàyyi lii wa ñàkk lii am na ko waxoon loolu de moo tax ñi ngi xam ni bi Cheikh Sidi Hadji Mari indee gàmm ci forme boobu muy cadre di ci dajale mu xaddam yépp ñu bàyyi ko fépp di ko di ko fekki Tiwaawan mu yokk seen àlluwa jàngale nañu musul dégg yokk seen leer yokk seen yiw bala ñoo dem ku mu xool ku ne ku yelloo eh, ijaasa mu jox la ijaasa mm-hmm. ku yelloo yeesal mu yeesal la mm-hmm. ku yelloo ndénkaan mu dénk la mm-hmm. loolu la daan def moom Seydi Hadji Malick waaw mi nga xam ne moom basiram doy na war dem ba 1922 mu bàyyi koo fi wuy ji boroomam bàyyi koo Serigne Babacar ñu ko yaa ma doon ci lépp wa warista min nii maa yahuudu musajjalan li riwaayatin wa diraayatin tasjila mm-hmm. waaw ñooñu kaw mm-hmm. ak ñooñu suuf mm-hmm. ak ñi ñu am yaanu ci doy loolu la ko waxoon moom itam mu taxaw wut koo fayda nag ak mat la mu doon di gàmmoo nam daan gàmmoo xam ne xanaa xam ne sunu maam Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu moo daan toog moom ci boppam di di di jàng bordu bi mag ñi di ko aw ak baatam bu yé bu yéeme boobu ah kooku xam na li muy def ba ci nag sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mi ngi xam ne moo indi discours ci gàmm mm-hmm. moo indi discours ci réception bi pour bëgg a jàngale ne ñi teew ci gàmm gi yëpp ay njabootu yonente bi mm-hmm. ki bàyyi ko ci gouvernement ki bàyyi ko feneen ñëpp njabootu yonente bi la moo tax mu jàng discours am ndax gàmmu ji yomb na. Mm-hmm. waaye jëli fa yiw nag ak mm-hmm. xam-xam. Mm-hmm. looy defaree si jikko ba beneen yoon. loolu moo tax ma doon déglu si kuréel Serigne Cheikh moom nag moo jox ndigal si Moussa ci lu wér ni ko demal préparer course ba nu gàmmoo ji. ci kanamu ñëpp moom nag mu war a di gàmm ba 2011 mu góor gu baax gi. boo nee si Moussa bëggoon dama bëggoon ngeen di gàmm may seetaan. ndax daanaa gàmm seen maam di seetaan. loolu koo añaani Serigne Cheikh. baaxagoo. baaxagoo kat waaye nag Serigne Moussa ni mu gàmmoo at yëpp yéeme na waaye gàmmu ren. daa bari bari ay particularité gàmmu ren daa bari ay jagle jagle. Mm-hmm. daa bari yu ci feeñ lool. Mm-hmm. ci lépp di lu positif lépp di yiw waaye nag ci ña hmm. lépp di yiw di lu positif hmm. lu bari njëriñ waaye nag ci ña hmm. <laughs> waaye ñu xamagul moom ah xanaa yàlla mu ne baax ba ñu xam bis maam roqo ya gis nga doon yonent bi doon ko sallallahu alayhi wa sallam benn la te boo seetloo abdullah ibnu omar daa bokk ñi solo hadis bi mm-hmm. te mooy al ulamaau warasatul anbiya mm-hmm. yonent bi nee na ñi nga xam ñi borom xam-xam yi mm-hmm. seen xam-xam sell ñu di ko jëfe ñoo wuutu yonent yi mais yonent yan ñi sell di jëfe waaw am xam-xam bu sell xam-xam bu sell te di ko jëfe te di ko sellal ñooñ doon yonent yi waaye sëñ Moussa ne ku mm. mm. ne boo doon ku ne dafa am yonent boo doon am na ko doon ñëpp mm-hmm. waaw te moom yàlla boole ko ci ba tax na mm. eh, day jëmm joo xam ne wax dëgg yàlla mm-hmm. ah, bu ñëwee nan ko ndokkeel mm-hmm. sañ nan ko ndokkeel ndax ku def lu kenn deful ñu sañ la ndokkeel ñaanal la eh, moo tax boo doon xool tey li ko may loolu sëriñ Moustapha day boroom ndigal lu wér bis boo amee ndigal lu wér looy ragal wa daa'iyan ilallaahi bi idnihi wa siraajan muniira mhm. waaw day boroom ndigal lu wér mhm. waaye itam day boroom garanti mhm. dafa am garanti damaanatum min rasulillah mayam nga moom moo di mbir ya bisaaku moo jàll xadran mm-hmm. moo tax mu am ngeen di may mm-hmm. fa man yu laa si moo xut bi watos ko moo dëkkandoom mm-hmm. bi Serigne Babacar moo ko bind tudd naa ndigal lu wér tudd naa garantie surtout garantie waaye tam yàlla may ko xel moo xam ni eh, gis nga <laughs> mbokk mu baax moom Seydina Dem Seydina Dem tonton Deme tonton Deme ne mm-hmm. na yàlla si Moustapha mm-hmm. mm-hmm. dama maa fekk ci kër xaaji Xalifa Mbay noonu ñaar maa moom ak yàlla mu toog ni ma Serigne Moustapha noonu moom noo bokk ne ci daara waaye par bis par bis laa waxati bis bu bu nee këll rek day mel na gan sunu biir ndeysaan naa dem moom ma ko wax ci kër Xalifa Mbay bis bu ne tël de mel na gan suñu biir mun hmm. na koo miin mukk hmm. ne ma xañ loolu benn affaire la hmm. dégg kon mu ne ma waaye nag li ma gën a yéeme si Moustapha si na mooy xel mi ko yàlla jox joxu ko nit daa bokk ci critères yonent yi xel mu rafet ndax xel mu rafet ci nga mën a diriger ñëpp borom xel ma rafet du parparloo. wallaay du xatal. Mm. du siis. Mm-hmm. du bëri kenn. wallaay dëgg dem nee na ma. Serigne Moussa xel mi ko yàlla jox. la mm-hmm. joxul kenn. ko yàlla kon loolu daa bokk ci yi jar eh, topp ko waaye nag yàlla yemu ca. Mm-hmm. dafa am lu ñu tuddee charisme. ci tubaab charisme mooy koo xam ne. bu ñëwoon ci mbooloo mi rek boo séenee ah waaw xanaa kii la ñuy wax. Mm. parce que yàlla dogal ni physiquement rek physiquement rek. Mm. Mm-hmm. si Moussa niroo la kenn. comme niroo am na ko xam boo gisee rek yaru mm. xam sa bopp loolu ñu tuddee charisme. waaw jaasi bi qawiya boo xam ni da koy am. Mm-hmm. ba mën a mbooloo yóbbu leen ci yàlla. waaw mm-hmm. ah muy ko muy borom barke nag. yàlla ko mm-hmm. yàlla ko jox barke. boo xam ne ciy juddu. Mm-hmm. nàmp ko donn ko barke. al yumnu wal baraka. am ko xam lu mu laal mu barkeel. <laughs> lu mu ñaan mu barkeel te loolu yàlla na sax. waaw yàlla sax yàlla yàlla xeeb dolli. bàyyi ko ko ci ay ay ay ak i maamam. waaw <laughs> ndeysaan. dégg naa ci Louga ci gàmmu soxnaas mm-hmm. Serigne Cheikh nii lépp looy tàmbali ni bismillah mm-hmm. barke Serigne Babacar Sy mm-hmm. ne na loola cat du ca dugg mukk cat dugg ne loolu xaas yaam la maam la xam maa ngi yem fii muy nag ku yàlla xamal planification maa naka na koy exécuter ak na lañ koy évaluer tëral plan sëñ Moussa nee na yàlla sunu boroom bu la séddee ci turam mu tuddee xaaliq bis bu nekk nga indi lu bees tàq loo xam ni xamuñu fu mu nekkoon moo tax tëral plan rek bu jub maa defee ni yàllaa ko ci may loolu na jar na mayam foofu ma nee ba ci kanam danaa ñëwaat mhm. ci ah mais nag kuutabe kuutabe si Moussa day joxe rek. Hmm. dara du teg si loxo bi. joxe mi tam xameewu ci kenn kenn day joxe rek. waaw ndax ni ku baax. Hmm. day tabe loolu am naa ci ay ay dalaayil yu bari ay hmm. ay ay tegtal yu bari yoo xam ni mën naa koo tudd waaye nag comme dafa xat ma bàyyi sama gan bi <laughs> ba ci kanam kon nag tey dina ñëw di ko ndokkeel ci gàmmoom gi. Mm-hmm. gàmmoom gi hmm. gàmmu maamam gi hmm. gàmmu way juram gàmmu sëriñam hmm. waaye gàmmoom gi waaw di ndokkeel itam nag suñu capitaine maam Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum moom mi organisé yàlla na yàgg amiin amiin yàlla ñu ci fekkee lu bari yàlla di ko yokk di ko yokk di ko yokk biir ak bitti maam loxo macha allah imam soxna Khady ñu bàyyi nga indi yow noo jàngatee ndokkeel gi ñuy ndokkeel Serigne Moustapha ci gàmmoom gi <laughs> macha allah ah. gi de mhm. yiñ ci mën a jàngate bare na ndax li may wax rek toujours ne gàmm gi ma neexati na mhm. neexati waaw <laughs> ndax euh, toujours day neex <laughs> kon ndokkeel gi ñun liñ ci mën a jànge bare na mhm. waaye gàmmu ren gi yaakaar naa ne ku taxal sa course ba rek. Mhm. am na loo yëg. na loo yëg si sa xol. Mhm. waaye am na loo xam ne tam da nga koo gis si say bët. Mhm. te muy dëgg goo xam ne nii. la maam seex ni woon ñaari dëgg mënuñoo ànd. xam naa gàmmu ren gi firndeel na si yu bare. ndax boo gisee nit ñi ni ñu teel a ñëwee si baas bi. ak ni baas bi teel a feese. ba ñu dem ba man dama mujj sax tiit ndax dañu dem ba mujj gi. ñu naan wàcc leen sees yi jox gan ñi mm-hmm. waaw ak li ñu baas lépp ah muy loo xam ne nii wax dëgg yàlla damay wax ni mayuk nitu yàlla la mm-hmm. waaw ndax ñun sëriñ Moustapha mën nañ ni du sëriñ mm-hmm. nitu yàlla la ndax nitu yàlla moo am loo xam moom la ko yàlla y jagleel ba nga xam ni ñii ñëw si moom sax bu ñuy ñëw li ñuy dégg bu ñu koy dégg rek day dugg si seen xol yi bu baax te ñun loolu la ñuy yëg si suñu xol waaw loolu la ñuy yëg toujours itam <laughs> ah beneen bi si des itam muy loo xam ne nii leçon la boo xam da koy joxe si mm. gàmmu toujours boo jógee si gàmmu damay wax ni ba gàmmuy del siwaat mm-hmm. mën nga waxtaanu gàmmu rek ngay waxtaani waaw ndax li mu ciy wax mm-hmm. ah euh, leçon yi muy joxe mm-hmm. nga xam ni day joxe leçon yoo xam ni xam-xam la waaw nga ci jëfandiku ba si si jox sax sa ñeneen ñoo xam ne nii bokkuñoo ak yow sax principe ngay ànd ak ñoom si loolu mm-hmm. wax dëgg yàlla muy cant goo xam daal ah dañ koy cant waaye duñ ko sant sax Serigne Moustapha mm-hmm. dañ koy sant euh, capitaine mm-hmm. ndax itam li may wax toujours rek damay wax ni wat sa watit ndaxit fii mu toll Serigne Moustapha toll woon na ah yàlla defal ko ndam kon moom it li liñ koy ñaanal mhm. mooy ndam la nga xam ni moom papaam amoon na ko mhm. yal na ko yàlla defal si barke yonent bi nga am ren gi daal mhm. wax dëgg yàlla am na solo am solo goo xam ne nii ah ñun moom liñ ci yëg yëpp dafa bari waaw am nañ ci yu bare yoo xam ni yëg nañ ko ci ah bi siyaar bi ñëwee nag faf nag indiwaat nag waa siyaar bi am solo lool wax dëgg yàlla daal wax dëgg yàlla am nañu kontaante daal. Uh-huh. li nekk suñu xol yëpp daal. Uh-huh. xam naa mënuñu koo génnee. Uh-huh. tuuti na si lamiñ di ko génnee waaye daal dañ koy ñaanal yàlla rek. ah li may wax nag toujours rek. di ñaan yàlla mu mucc ndax bu muccee rek ñun ñu mucc waaw ah, am nañu yàlla dugal si biir kaaraange ci barke yonent soxna Khady jërëjëf imam xam naa suñu mbokk yi ñuy seetaan eh, yéen tamit eh, ñu bàyyi ngeen indi seen wàll ci ndokkeel gi ñuy ndokkeel góor gu tedd gi ci felt bi borom yoof borom Tiwaawan moom mi nga xamante ne yar na ñëpp jubbanti na ñëpp mm. li soxna Xadi wax léegi rek li teew ci course ba ciy nit teew ci ginnaaw course ba ciy nit te kenn mënu fa wokk kenn ci jikko kenn mënu fa wokk kenn ci doyadi mm. kenn mënu fa wokk kenn ci indiscipliné ak la fa teew lépp mm. day firndeel rek si Malick Fawad ni moom rek la ñu war a ndokkeel moom rek lañu ñu war a sargal salaamaaleykum. salaamaaleykum allo. allo. allo waaw. allo. mbokk bi dafa rëcc mais ñu ngi lay xaaraat su duggee incha allah. ñu ngi ngi ko doon dégg. Mhm. kon loolu yëpp day firndeel rek ne mhm. moom lañu war a ndokkeel. Mhm. ndaxte nag am na loo xamante ne ku ko sombi ci bu muy metti li ma wax fii keroog. bi ñëpp di xëccoo darajat. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi sant bu baax sang bi. kooku kan la Golf Sud. Pape Golf Sud. Magu Ndeye xanaa <laughs> na nga fi maa lay nuyu. <laughs> maa ngi lay fay. da ngaa ndekkeegul moo tax nga jaawale affaire. ah damaa jaawal lu ma ah, jaawal. ah waaw yaa ko wax de <laughs> na nga def. baax na maa lay nuyu di nuyu eh, imaam di nuyu si seen lay fay soxna Khady safa. Mm-hmm. di ko teg si ka capitaine comme ni ko ñëpp di waxee. dëgg mm-hmm. di ñëw rek di. ndokkeel ndokkeel comme ñëpp rek wax dëgg yàlla. Mm-hmm. gàmm gi ñëw weesu. waaw di si sant bu baax a baax am mbégte bu baax a baax. Mm-hmm. waaw di sant yàlla bu baax a baax. comme ni ko imaam waxee léegi rek. ñu mm-hmm. mm-hmm. yàlla may loo ko xam ne nii bu mu mu won ñu loo xam ne nii gisuñu ko. waaw. Oh. Oh. jënd ngaa jëndee mburu. <laughs> sëñ Pape ñu ngi lay xaaraat nee naa la rek dangeen ngeen jaawaloo da nga kaa jëndee mburu waaye ñu ngi lay xaaraat fexe rek ba woote waat. <laughs> ñu ngi koy sant bu baax. Eh, kon loolu sëriñ Moustapha Sy loolu nga xamante ne yàlla jagleel na ko mm. imaam wax na ko léegi jagle la mm. Mm. du ko jóg mën ko man daal maa ngi ci drapeau imaam bi ku mën na def mm-hmm. waaw ku xool la am mm-hmm. ku gis la fa ne mm-hmm. ku yëg la nga yëg ku mën na def ki nga xamante ne moo tax ñëpp jomb lu ñaaw jomb lu mbon ci ndaw lu mat quarante ans cinquante ans bi ñëpp di xëccoo pour defi leneen di am daraja di xëccoo alal di wuti leneen talu ko mi ngi doon xëncewoo nu mu yaree nit ni mu doon xëncewoo nu muy def ba nit ki juboo boroomam nu mu doon xëncewoo ba nit ki mat yàlla njaboot mat Muhammad njaboot ah comme mayu yàlla la imaam wax na ko léegi ku yàlla wogal sa mbubb nag mm. sëriñ Cheikh nee na dootul diri ko ci sobe kon ñu ngi leen di xaar yéen ngeen dugg indi seen ndokkeel comme suñu góor gi la ñuy ndokkeel ci gàmmu gi ñu ñu ñun ñëpp ñu ndokkeel ndax nag moo yeyoo ndokkeel mm. imaam soxna Khady yi mm-hmm. moom la koy jërëjëf. Mm-hmm. xam nga si Moussa day jëmm joo xam ni. Mm-hmm. lépp luy wàllu tarbiya. Mm-hmm. wàllu yar. moom da caa jaar. dafa tarbiya wu ca tool ya. tarbiya wu ca daara ja. tarbiya wu ca gàmm ya yëpp bind bind ya. teg nañ ko lu ne. mu tegoo ko. jaa ci Serigne Cheikh. bii jaa ci Serigne Abdou. bii jaa ci soxna soxna. sëñ Pape Malick waaw waaw ñu ngi lay xaaraat rek mbokk bi waaw naa dafa te ñooñu ay nit yàlla lañu ñooñu ku leen sonnal yàlla fay la te nee na kër gi yëguma koo xam ni rendre ma ko service muy Serigne Mansour muy Alaji Abdou ñoom ñëpp ñoom ñëpp rek yàlla nag ku sérieux la yàlla moom ku honnête la nee wa ma rabbuka bi zallamin lil abid mhm. man yàlla du ma tooñ kenn wa wajadoo ma amilu xaadiran mhm. wala yazlimu rabbuka ahadan mhm. waaye nag maam loqee bu ñuy eh, ay alxuraan dafa ne muhammadun rasulullah moom muy orkalas waaye nag wala seen maahu la yàlla tagg yonent bi moom ni mel la mel ak mayu yàllaam waaye ña ko ña ko toppoon dar ko nag saaba ya ak sahabiyaat yi ñu góor ña ak ñu jigéen ñi mm-hmm. Mamor nee na ñooña mm-hmm. ñoo jar tuur sarangooñ mm-hmm. in kunta baakin fab ki ashaabal nabi Mamor ne boo dem ba boo war a jooy rek jooyal jooyal ndax ba méttee te te ñoo taxaw ba dina taxaw raay dina di folote moo tax bu ñu nee gàmb gi mel na ni war a mel yéeme na nañu sant képp ku ci laal ak noo ci laale na maam Roqee mhm. nañu sant ñi nga xam ni wax dëgg yàlla jege nañu mbaa ñu sori mhm. waaye nag jàpp nañu ci gàmm gi ba mel ni mu mel mhm. waaw ñi nga xam ñooy organisateurs yi waa CAO xam ñu fay jiitu ñoo fay mujj bàyyi seen i kër salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah sang bi noonu Koutay Gueye Joxoor. eh waaw def. ana waa Joxoor. ñëw fi. a ngi si jàmm. alhamdulilah. ana góor gi pen. mi ngi fi biir kër. kay nuyul ñu ko baax ak njaboot. mu foofu Mourchid TV Mourchid TV. waaw yaa ngi Mourchid. maa ngi Mourchid. waaw. al imaam Samba nekk chauffeur bi nga indi woon Dakar. Eh. waaw. <laughs> waaw imaam mi lay dégg. waaw chauffeur bi la indi woon Dakar ba wax nga dëgg de. ku allah ku tay wala wala wala. imaam imaam maa ngi allah. kontaan nañu kontaan nañu. dëgg la walaay ah, loolu yàgg na. allah macha allah. Gueye Gueye. est-ce que ku tay. ñun. waaw yëpp yëg nañu ci guerre la ñu nekk. am ce que. Babaam Seex ne. Mm-hmm. Sëriñ Moustapha mooy seen chef de guerre. Mm-hmm. ci la ñu yëgee ni ci chef ci guerre la ñu de guerre nag day am day am capitaine. Mm-hmm. <laughs> ah maam chef mu ndaw mooy suñu la. waaw ñun yëg nañu lool yëg nañu ñoo ngi ci guerre. ñu ngi ci yëgee yàgg na. ndam rek <laughs> sëñ Koutaay ñu ngi koy nuyu bu baax ah, nuyu waa Joxoor nuyu góor gi pen ak Fatou pen ñoom ñëpp ñu leen di nuyu góor gi Abdou pen ak ñi ko seqal ak ñoom oustaz ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom oustaz Guèye mhm, imaam ah waaw moom de am ci waalo waalo yi mhm. Mhm. ndax ñooy samay goro ñoom sama mbokki taalibe waaye Koutaay mii nag li muy lu yàgg la ndeysaan ba sama ba këppoo ci <laughs> ca ñiij uh-huh. ñoom ñoonu ñooñu jël indi ñëw ndeysaan loolu lay wax nii ndeysaan mm. te kenn xoosuwul uh-huh. wallaahi kenn xoosuwul oto bu fees dell noonu ah ko yàgg a fekkee amiin kon ñu ndokkeel organisation mm-hmm. ci seen taxaw salaamaaleykum allo allo allo waaw salaamaaleykum aleykum salaam naa def soxna maa ngi sant bu baax. macha allah ah, ku leen bëgg yaa ngi wax ni yaa ngi si biir Mourchid. ah salaamaaleykum. maaleykum salaam. salaamaaleykum. soxna na ngeen yendoo. ñu ngi sant yàlla bu ba ñu leen di ziar. yal na yàlla nangu ziar. tudd. man la maam Ndéla Wade. ah Ndéla Wade. maa ngi wootee fii Cambérène. Cambérène ana waa Cambérène. Ndéla waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna waa ñu ngi lay ziar alhamdulilah. arikaal. Ah, moom moom macha allah rek la wax. macha mhm. allah dëgg la allo allo. xanaa di di dolli ndokkeel rek. waaw ah, incha allah. waa soxna Ndeel. waa déglul kii déglul téléphone bi boo dégloo télé bi duñ la mun a dégg déglul ah, téléphone bi. waaw ñu delloo ndokkeel rek xanaa di yokk ndokkeel rek. xam ne moom gàmmu gi moom li li sunu tante jooju wax rek moo ci nekk. <laughs> da delloo delloo neexati rek. <laughs> ay neexati rek. man sunu yaay jooju wax rek moo ci nekk. Mm-hmm. ah mais gàmmu gi moom tout le temps rek. Mm-hmm. sëñ Moussa Fall fii lay jaar ak ñun. Mm-hmm. di ko yàq di ko ñaanal yàlla rek. te xam ne ñun Moustapha Sy bi. Ah. amuñu luñ ko fayee. dañ koy ñaanal yàlla rek. yàlla yàlla na ko yàlla aar te doon ko sutura. amiin doon li jaboot gi sutura. amiin amiin di ko maam Cheikh moomu. Mm-hmm. yow di ko ñaanal rek te xam ne mm-hmm. tollu woon na fi. Mm-hmm. macha allah. am na sëñ Moussa Fassé toll woon na fii. dëgg la dëgg la li nga doon wax rek keroog moo ci nekk. ku mën rek na def. waaw. man depuis gàmmu ba tey loolu laay wax. wallaay ku mën na def. wallaay. waaw te xam ne lii la yàlla rek la. Ah, ah, ah. jërëjëf soxna Ndéla. jërëjëf yal na yàlla fay la yëpp. amiin amiin ñu ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu njaboot gi. nuyu waa Cambérène yëpp yal na yàlla dool di taw feex te téyal ñu pas-pas yi. macha allah. ñoom Baye Makka jàmbaar la ñoom Baye mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. ak mbokk yi ñekk yëpp. di bëri leen nuyoo. waa commission de l'enseignement mm-hmm. et de l'orientation islamique mm-hmm. seen taxawaay ci wàll yu bëree bëree bëri mm-hmm. moom daa matale ñaan yàlla doon leen sutura te bàyyi noo suñu kilifa rek yàlla eh, mat naa ci seede waa ñi nga xam ñooy eh, action sociale seen taxawaay avant gàmm gi ba ci biir pendant après loolu lépp yàlla gis na ko. sëriñ bi moo leen ko sant waaye mm-hmm. defin ma rafet na lool. Mm-hmm. waaw yi. Mm-hmm. ku gu toll noonu ko organisé. ci wàllu son. ci wàllu làmp. ci dëgg dëgg. salaamaaleykum. Ah. waaw. waaw. baax na daa rëcc. Ah, waaw ñu yore woon caméra yi ñu war yoon son yi ñu yore woon lamp yi ñëpp ku ci nekk mm. sëriñ bi yëg na la gis na la mm. waaw salaamaaleykum allo waaleykum salaam waaw soxna si waaw Sall Fall man maa ñëwaat waaw Fall mburu mi nga wàññi ah <laughs> waaw baax na gisaguñu mburu mi <laughs> waaw liy wax rek di am mbégte bu baax a baax si gàmmu gi amoon na na solo uh-huh. mm-hmm. waaw comme li ma waxee sànq rek kilifa mm. goo xam ne nii saa yu ñëw sa gàmm day day beer mm. day mel ni musoo gàmm musoo musoo gàmm si <laughs> loolu moom doy na sant yàlla mm. waaw ñu siy ndokkeel encore suñu capitaine ñu xam ne ne comme ak taxawaayam ñu ñaan ñaanal ko yàlla wax dëgg yàlla comme ni ko soxna si waxee rek euh, sëñ Moussa ne la man def naa samay preuve mais moom tamit mu def ay preuve am incha allah ba ñu mu weesu mu weesu njor tam amiin amiin waaw loolu lañ koy ñaan te gëm nañ ko xam ne mhm. xam ne dina nekk incha parce que mhm. kilifa gi liggéey na lépp loolu mhm. waaw ñi leen di leen ci ndokkee rek di am mbégte wax bëgg yàlla si émission bi eh, ñangeen bi nag maa ngi lay laaj yow gisuma la si gàmmu <laughs> la si gàmmu de xam naa ne dégg naa ne si waañ bi ngay nekk gisuma la fenn lu dul sa télé bi yow mais yéen a laa fa nekkal man looloy sama mission kay yow kan nga fay nekkal te ndax reeru gàmmu kenn reetu ko xam reeru gàmmu ndax ndax ndax dem ko dem reer ba pare. <laughs> waaw baax na la eh, rek laa gisuñu ma si gàmmu gi mais comme li ma wax rek kenn reetul reeru gàmmu ndax bëgg a teel a dem. wallaay dëgg waaw kon donc xam nga euh, euh, gàmmu bu ñu koy wax ñun xam nañ lu tax. mujj donc nag li ñuy jël li ñuy jël course ba moom mm. mooy suñu dund. Mm. waa lépp li si tegu rek bénéfice la mm. mooy li nekk si daal ñun loolu ñu gëm parce que da gis da yëg ne nit ñi course ba lañu foofu la ñuy dund see. dëgg la waa xam nga nit nekk fa. Hmm. nekk fa euh, gàmmu fa. Hmm. génnul course bi. Hmm. daal di fa xaar fa ziar ba. ba male da male dal ko fa ñu ne ñu ne dafa lekkul moo tax. Oh. waaw dañ ko daw wutal wutal ko lu mu lekk ndax dafa lekkul xam nga ne kooku kooku li ko kilifam jaral ëpp na. loolu nag day na sant yàlla wax dëgg yàlla am nañu mbégte daal amati nañu mbégte daal bu baax a baax. ci gàmm ñu ñaan yàlla di fekk. at yu bëree bëri suñu keppaar kilifa waaw di bu baax a baax ñëpp di am mbégte wax dëgg yàlla si yéen ñu ngi am kontaan bu baax a baax na yàlla jàppale responsable yëpp si ginnaaw kilifa ba mission bi ñu gën ko yóbbu fu ñu ko bëgg a yóbbu incha allah ngi ñu ngi yaa ngi imaam yaa ngi am nuyoo soxna si wala waaw maa ngi koy nuyu waaw ak njaboot gi incha allah ñu ngi am mbégte bu baax a baax jërëgeen jëf incha allah ah, waa kay ñaan ah, jërëjëf kontaan nañu imaam moom dina kontaan parce que hmm. tey daa xëy ay gorom di ah goro yi kat moom kenn yaay la boole ci hmm. Pafal frère la hmm. ndax mooy magu ndey aadama ñu bokk ndey ak baay léegi ah. léegi rek Pafal rek doo ci yam il faut nga egg si ndey aadama nekk Italie waaye gàmm si na ah. te bu gàmm si na ñëw di ñëw effort woote boole ci hmm. dëgg yàlla loolu dafa am solo mooy man bokk naa ci liggéey bi rek waaw mooy dal kii rek soxna soxna xadi maa ngi koy bàyyi kàddu gi ndax fi ñu tudd damaa yaa may sañ xal te ma damaa oh. <laughs> salaamaaleykum allo <laughs> allo allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna maam Fama. soxna maam Fama. allo. waa kay soxna maam Fama. bisimilah. waa allo. soxna maam Fama. allo waa soxna si. Rose Sénégal. Ah. ah soxna maam Fama waa kay ñang bàjjen. waa kay waa ñang baalo ñang ñang ñang. soxna ñu ngi lay ziar baax bàjjen. kontaan rek. wallaay ñoo la gën a kontaan. lu nu kontaan ba xamatu lu noo wax. dëgg la wallaay dëgg la. lu nu fokk ni woote. dëgg la leen. wallaay ndokkal suñu kilifa. est-ce ndax ñun moom rek lu ñu am. wallaay dëgg fépp fu waay taxaw. Mhm. taxawal ko fa rek. dëgg la suñu bët yëpp si yow lañu koy teg. ndax Serigne Moustapha rek la ñu mhm. di ko ñaanal di ñaanal capitaine. dëgg la ndax lu waay jëy rek loolu ngay loolu moo fay sax. Mhm. Serigne Moustapha li mu defal Serigne Cheikh fokk maam ku ko fay. parce ñëpp teg ñu seen bët. kon nag di ko ñaanal rek. te di ko sant. yal na fi yàgg. amiin yéen ñi nga xam ne yéen a fi taxaw di ko taxaw. Mm-hmm. yen itam yal leen yàlla may. amiin yaa rabbi ñu bokk. may leen tal. amiin ndax ñun sëriñ bi rek ñu am. Mm-hmm. fépp foofu waaye tudde rek ñoo ngi ne tokk di la déglu di la. Mm-hmm. moo tax ñuy wax ñun compté wu ñu ay wax yooyu. ñun ñoom suñu bët yëpp si moom la duñ ko teg di ko ñaan lu ñaan kay mu mucc. mucc leen. ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax. kontaan rek moo tax ñu woote. jërëjëf ñang macha allah di nuyu imaam Samb bu baax imaam waaw mi ngi lay dégg di nuyu soxna soosu ngeen toogaaleel bu baax soxna Xadi ñang ngi lay fay bu baax jëf jërëjëf jëf jërëjëf bàjjen ñu ngi kontaan lool ci woote bi moom moom wax dëgg yàlla ndeyu daara la kër gi wàccuwaayu daara la wax dëgg yàlla li mu wax noonu lay jëfee mhm. soo fa demee xamul koo doon ak mhm. foo jóge moom neel njabootu Serigne Moustapha nga mhm. day mel ni Serigne Moustapha la gis accueillir la dalal la fu waay jóge foo mën a nekk ñu dalal la sargal la boo dee dem ñu jàppale la dimbali la loolu ndeyu daara piir la day wane rek liggéeyu Serigne Sall li ñuy wax ne bi nit ñi di xëñcewoo leneen moom mi ngi xëñcewoo fexe ba boole raison ak raison ñu mm. mel ni ñu bokk ndey ak baay te mm. bokkuñu ko te li ñu leen bokkale moo ko ëpp loolu la mu bàjjan faa ma nekkee ci Rosso mm. ñu nuyu ko nuyu ñam ko seqal ñëpp ñu nekk Rosso alaaji rawaan Jóob ah rawaan ak daam ñoom bu Rosso mm-hmm. ak soxnaam mm-hmm. ñu nuyu leen Euh, te jox soxna Xadi kàddu yi moom. macha allah kon ñu nuyu waa Rosso ñëpp rek. Ah, soxna ah waaw xam naa moom day yëf yi moom. buñ fi toogee di wax ba subaat. Mhm. moom leen rek lañuy mën a wax mooy. Mhm. neex na neex na daal mënul paase mhm. neex na. amatina solo ji ñuy wax mënat mënatuñ koo paase. waaye gàmm gi daal wax dëgg yàlla. am na réussir bu am mm-hmm. solo mm-hmm. ndax comme ni ko soxna Roqaya waxee rek mm-hmm. mbooloo mu toll noonu nit ñu toll noonu ñu dajale leen fa te itam kenn déggu fa kenn ku ni sama lii réer na ah déggoo fa itam ku sama nangam jël nañ ko fi a ah, si sant yàlla la bokk ndax itam njaboot yu ñu yar yar rek ñoo fa bokk teew moo taxit wax dëgg yàlla gàmm gi réussir gi mu am mu am ko. ndax itam li may wax toujours rek damay wax ni Serigne Moustapha. Mhm. ñun dañoo jàpp def ñu ay nit. Mhm. waaw Serigne Moustapha ay nit lañu def. Mhm. ndax bu ñu def wani dof bu ñu génnee ñëpp xàmmee waaye dañoo def ay nit ba foo génn ñu xam yow yaay kan allo oh, mm-hmm. <laughs> waaw mm-hmm. yar gi muy yar njabootam mm-hmm. ba fu njabootam mën a taxaw rek ñu xam ni kii njabootu sëriñ mu Moustapha la yaakaar naan loolu rek kenn mënu ko cee ndokkeel bu gàmmu ñëwatee mu joxewaat leson boo xam ne nii ñun ñëpp si la ñuy dund ba keroog ñu fiy ñëwaat jaral nu ñun ñi nga xam ne sax dañu nekk si àll bi da lay jaral nga koy programme ba bu ñëwee rek sa lépp mooy fii allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. sang bi noo def. jàmm rek alhamdulilah. arikalla fooy woote. noo tudd. ah Mourchid TV. waaw yaa ngi Mourchid waa. waaw am benn maire li moo doon. benn maire waa jox ñu ko. noo tudd. allo soxna Alimatou Gaye rek a Joxoor yaa Alimatou Gaye waaw yaay booy na nga def bàjjan Alimatou dama naa leen wallaay ñoo la raw gay ana waa kër gi ñu ngi fi rek ana waa Joxoor waaw waa Joxoor a ngi fi maa ngi ni toog ak allah jab du fen ñoom ah waaw kay nag nuyul ñu leen ñoom ñëpp ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax moom itam di ko sant baax wallaay waaye ñoo ngi li nuyu di nuyu suñu imaam sa Samba dëgg la mi ngi lay fay allo waaw ñu ngi lay dégg bàjjan ok ñang waaw comme li maam faama noppee rek waaw kontaan gi ñu kontaan ba bu dee wax sax dañuy juum ndax kontaan rek. dëgg la. ndax benn nit rek lu ñu am. Mm-hmm. bu ñu nee benn rek danga naan yàlla wala yonent bi waaye am na nu ko xam moo ko fi toogal. dëgg la mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam muy Seydi Mouhamadou Moustapha. Mm-hmm. jàngal nañu lépp nag. dëgg la la nga xam ni rek bu ko nit defee am si ndam rek Serigne Moustapha jàngal na ma. yar gu mu jàngal ak yaru ak bëgg nit. ku nu gis daan la def kon sunu bopp. yëpp soo ko jàngee si moom. ah di ñaan yàlla nag lii seen toogaay bi yàlla ba mu dakk amiin amiin ndax ñu ngi yéen a ngi gindi nit ñi di yéen nit ñi mm. da man ma masuma sax wax si rajo waaye mm. te ji naa wax te télé mm. télé lu doon wut am na nu rajo am na nu télé fu nu toog noo ngi nii di leen di leen seetaan mu mu euh, euh, siti yi ñu wut télé di wut ah, ñu nuyu ko bu baax nuyu waale wayjur yi mu toogaale yëpp père mère ya fa nekk ak waa cellule féminine ña fa nekk yëpp mm-hmm. ñoom ñoom mm-hmm. jàmbaar lañu jàmbaar lañu am na loo xamante ne nag moom ku kenn rek a ko sañ a seede mm-hmm. waaye daal ay jàmbaar lañ ay boroom taxawaay lañu jur yi nekk foofu jox yoor ñoom ak tund woowu yëpp ay borom yi pas-pas lañ ñoo xam ne dalal ganuk Serigne Moussa mu day mel ne sax ñoom faf yàllaay wàcc seen kaw allo salaamaaleykum waaleykum sang bi nanga def waaleykum salaam wa rahmatulah. loo tudd man Cheikh Tidiane Ndiaye Kolda. Oustaz wàññil télé bi ñu dégg la. waaw ah, kay. waaw bisimilah. Mhm. ñu leen di ndokkeel. waaw kay ndokk sa wàll. Ah, xam naa di ndokkeel góor gi. Mhm. dëgg la. waaye li ma bëggoon a wax yëpp ñu bari wax nañ ko. dëgg la <laughs> Ndiaye Ndiaye. waaye sunu capitaine lay njëkk a ndokkeel. yàlla na ko décoration bi mu defal suñu kilifa. <laughs> beneen ba mooy dal bi nga xam ne moom la sëñ bi organisé njabootam boo ñu am dal sakkiina bi. Mm. dal waaw. ndax loolu nee rël su ne ko doon ñu sakk ñu am dal. Mm. musuma bu rëy dina fa am. te loolu nag ku yar sa njaboot rek. Mm-hmm. yaa ko mm-hmm. mm-hmm. ndax la ma waxoon ca kër Jàmma Njaay hmm. ah, ñu ngi lay degg ñu ngi lay dégg waaw hmm. la ma waxoon kër Jàmma Njaay ne satellite baa ngi hmm. xam nañ ne moom moo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali waaw te li imaam wax ku mën na def na def coow li bari na waaye nag gémmañ guy naaj. Mm-hmm. du wax jàmm. Mm-hmm. Mm-hmm. borom du wax <laughs> waaw xaj yoo xam ne dañ ponkale xaj suñ leen tëjee ci benn néeg. une semaine ñu xiif. fekk dañ la doon xiifal ñu daal di benn xaj bu ndaw def ñu jégalu ci waxin bi benn xaj bu ndaw ñu sànni dem benn dogg yàpp rek benn xaj bu ndaw jël ko fekk ñoom am nañu amatuñu doole pour daw lan la ñu def wax rek yuuxu rek wax rek lañu ci mën li ñu nepp soxla woon moom la yàlla yëkkati jox ko Cheikh Mouhamadoul Moustapha si yàlla nañu ko sa yàlla sàmmal sàmmal ñu suñu pas-pas ba nim ñu motee kilifa ñu motee ko noonu njaboot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun amatu ñun du ñuy wax lu suñ Moustapha rek suñ Moustapha moo suñu guddi mooy suñu bëccëg mooy suñu suba mooy suñu ngoon mooy suñu dëpp waaw kenn ku góor yàlla sàmmal sàmmal ñu suñu capitaine na ba li mu yéene kilifaam mu ko ci nuyu la nuyu aha yal na yàlla fay leen yiw nuyu ñëpp rek moom da ñoom moom moom ku wax rek ku wax rek benn wax bi la ndax naanuwaay bi nàmpaluwaay mm-hmm. bi benn la mbër nang ca ka la jàggiroon mm-hmm. kenn ku nekk ak ka nga xamante ne moo la jàggiroon ñun nañ ki ñu mm-hmm. jàggiroon moo jàggi waa Joxyoor Joxoor moo jàggi waa Rooso moo jàggi waa Kolda moo jàggi fépp parce que nag moo defar ñëpp waaw ah? ndaanaan ndaanaan la de ndaanaan ay maasam ndaanaan mooy ku yàgg daan ku yàgg daan ba daan ay maasam daan kii si Moussa ndaanaan la. moo tax ruq bu nekk ña gën ay njabootam lañ. Mm-hmm. ah soxna Xadi ma bàyyi nga eggale. Oh. waaw comme ni ma ko doon waxee rek. Mm-hmm. ci yar gi bu yar njabootam ba nga xam ni. tey fu njabootam ni tëll génn rek ñu xam ne kii njabootu Serigne Moustapha la. Mm-hmm. ah loolu wax dëgg yàlla muy lu rëy. loo xam ne nii damay wax comme ni ko Oustaz Samba Diop di waxee rek. ku mën na def. bare na mbooloo yi bare na. waaye nag. Mm-hmm. mbooloo yi dafa am mbooloo si seen mm-hmm. biir mm-hmm. te mbooloo mi si seen biir mooy suñu mbooloo mi nga xam ni fu ñu génne rek ñu naw ñu li may wax xale yi toujours suñuy wax ma ni leen kade bi gën a tuuti salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam sang bi maa ngi lay nuyu loo tudd lay nuyu ñu ngi lay fay bu baax papa di nuyu Imaam Samba. Imaam mi lay fay. Baye Makka. eh Baye Makka Ndiaye. <laughs> waaw. Ndiaye Ndiaye. ñu ngi leen di ndokkee ci gàmm gi waa sa wàllu papa. bu baax di ndokkee sëriñ bi ci gàmm gi. dëgg la Ndiaye Ndiaye Ndiaye. di ndokkee capitaine. Mm-hmm. coow bi moom jarul muy bari. déedéet. nit ku ne saa bu dëgg la waaw waaw. xam nga wax rek. dëgg la la dëgg la. ku mën na def. ku mën na def. ku jaaxle ci sëñ Moustapha nag. da nga ah. ku jaaxle ci maam Seex da nga daawul déglu sëñ Babacar. Mm-hmm. ku jaaxle ci capitaine da nga daawul déglu sëñ Moustapha. ku ci ne dindi nañ la ba awamuy ñëw. Mm-hmm. wax la ko. nit nag mënta mën mënta dégg dégg sëñ Moustapha mhm. te déggoo woon sëñ Cheikh mhm. waaye képp ku daan déglu sëñ mhm. bu sëñ Moustapha waxee dañ ko dégg lu am solo ñii coow ñëpp dañuy door a wàll si dañ koy door a dégg di mën a ji jumee ndax ko ne ci beneen gàmmu di fii wër keneen. Hmm. xam nga ni ka ngay fii wër kooku waay mooy waaj. waay waay ah, waaw am na ñoo xam ne ñoo ñëw lañ ñëw rek. Hmm. Ah, waaye fañ doon gàmmoo sax déglu wuñ ko. Hmm. moom moomu lañ doon déglu. <laughs> kon nag si Malick yal nañ ko yàlla fayal. amiin yaa rabbi amiin yal nañ ko yàlla fayal. amiin ñun moom coow yóbbu wunu. déedéet. coow yóbbu wunu. yóbbu wunu de. ñun seen lu mu xas wax. bare nañ te noonu la ca leneen. waaw. waaw. billaay. lu mu wax lu mu jàll nañ ci leneen loolu di di ko waaye li mu xas wax moom xaaral nañ toll kenn ku ay commentaire nag yaa yaa ci des. <laughs> bu baax di nuyu waa Grand waa Cambérène yal na yàlla mottali. amiin xam naa may wax rek ne mhm. <laughs> njabootu Serigne Moustapha gi gën a tuuti. ñu mhm. baal ma si baat bi ndax mhm. amul sax ku tuuti. waaye kade bi gën a tuuti sax. boo ko tegee si mbooloo mu wax loo xam ne nii danga fay gis ay kilifa boromi bi jaaw yoo xam ne nii mm-hmm. xamuñu ko mu yar loolu si njabootam mm-hmm. moo tax may wax ni sëriñ mu Moustapha ñun amuñu fayam mënuñu koo fay mm-hmm. waaye nag comme ni ko sëriñ bii génn léegi waxee rek si ni ku kuy jaaxle si sëriñ mu Moustapha dangaa dégluwul maam seex te ku jaaxle si maam seex dangaa dégluwul maam kër Si mhm. loolu mooy daw ba léegi rek mhm. mooy taxit li may wax rek wat sa watit lay mhm. doon lu ñëw rek dañuy gën a yéemu capitaine mii ñuy waxit bu soobi yàlla day ñëw rek jolli dem fa dem day dem rek moom it day dem ndax li tax muy dem mooy li ko li koy giide waaw li nga xam ne moom moo moo nekk ci suuf di ko giide te muy papaam wax dëgg yàlla papaam maam Cheikh daka ni woon sagal nga ma mhm. yal na la yàlla sagal <laughs> waaw baat boobee nag mooy dellusiwaat si capitaine moom it mhm. wax dëgg yàlla sagal na baayam waaye moom it yal na ko ay doomam sagal mhm. te lii mu am yal na dund moomit ba ay doomam am ko ndax gàmmug ren gi yaakaar naa ne ba mu yëkkatee saagam bi yaram yu bare daw na waaw yaram yu bare daw na mm-hmm. te loolu asaka yéeneem la mm-hmm. te sëriñ Moustapha noonu la ko defale woon papaam ñaa mm-hmm. ngi fàttaliku ca jumaay sëñ Babacar ja keroog ba ñu wootee képp kuy musasit kontaan nga ndax ba ñëpp versé ba noppi ba sëriñ Moustapha versé ah xam nañ ni dangiñ gi ñëw na waaw ah kon moom it noonu rek lay mën a def xanaa di leen ñaanal yàlla rek ñu yemale foofu kàddu yi macha allah xam naa yéen ñi nekk bitim réew. Mhm. yéen a gën a xam si musuwaat ñi toog fii rek. Mhm. parce que da ngeen di da ngeen di jànkuwanteel foofu. Mhm. di ci ay solution wax dëgg yàlla ah, am nañu benn reconnaissance boo xam ne bii lu war lu am solo la. yàlla mottali yëpp. Ah, kon nag maam Roqee. nekkoon ci waañ wi. wax dëgg yàlla yal nañu ko yàggatal. amiin si Moussa ñaata waañ la ñaata gan la am mm-hmm. ah, ñaata dal la am mm-hmm. ku fexe ba ñooñu xiifuñu mm-hmm. ñu sant njaay ah, ñu sant njaay mën a seetaan gàmm gi <laughs> ah, la ñu koy def yàlla nañu ko yàggatal waaye itam ñi nga xam ñu féete woon ak nag yi toppatoo nag yi di leen rendi di fees di toppatoo ussa ngañ oh. fi reylu rendilu leen nag <laughs> mënu ko sax <laughs> waaye ñi fi réew foofu. Hmm. yéen leen ko yàgg a am xale yoo xam ne ñoo taxawoon nag taxawu xar yi taxawu ganaar yi toppatoo gan yi. Hmm. dëgg-dëgg loolu ñun ñun dañ cee bég lool. Hmm. ak boroom xam-xam yi xam ñoo bàyyi ko fépp. ñu bàyyi ko Maroc. ñu bàyyi ko Égypte. ñu bàyyi ko Mauritanie ñi bàyyi ko partout. ak ñu bàyyi ko euh, euh, euh, Casamance. ren ñi bàyyi ko Casamance ay njaboot lañu yoo xam ni ñu ngi door a ñëw. wa ayatu ardin lam taji bi wufoodiha question la wa ayatu foo xam ñëppay ñëw hmm. waaye sëriñ bi ñaar la waxoon dafa ne xellu ñëw wala xelu hmm. ñëw waaw wala man ajaaboo naylu xayri maraam waaw waaw <laughs> loolu loolu yonent bi defoon bi muy woote. ñun ñun buñ ci def. dañoo xellu wala dañoo. xellu dañoo dañoo xellu ñëw. waaw dañoo xellu waaw ca woote bu njëkk ba. a mm-hmm. daana fa ajab na. kooku waa miqbaad. waa miqbaad samaani. waaw mm-hmm. ah, kay. Mm-hmm. moo tax nag bu ñu santee ñooñu. gan ñu bari ñooy nga xam ñoo fi ñu borom xam-xam. am ñu taalif seen taalif bëggoon koo wax ci kanam kilifa gi. wallaahi. man sax taalif naa. waaw ndax yelloo na ko. waaye moom par modestie. Mm-hmm. rek bëggul daal ñu ñuy wane yenn yi mm-hmm. naar yooyu ñu ngi mm-hmm. seen xasayit indi ko xoolal ma loolu rek ah su ma ma jox ko rek. Mm. Ah, ah doo ñu laalal tuuti fii rek. <laughs> si taalif boo tax ma gàmm fi. ah <laughs> taalif bi kat war nañ cee dégg. Eh, ñi nga xam ne ñoo ànd ak nit eh, di leen toppatoo. aller et ci géew sikar yi. te tey siir ya mhm. ci wasifa ya daal boo dem ñu ngi wasifa mhm. wallaahi daal boo dem ñu ngi jàng tey siir daal boo dem ñu ngi def seen ñaan di nga loolu ku mën na def waaw ah. <laughs> kon nag maam roqee mhm. ñi ngi xam tam ñoo doon conduire oto yi te boole koo yar ñoo doon conduire oto yi te boole koo yar njaboot si Moussa nga yeb leen yóbbu leen Tiwaawan ci jàmm delloo si leen ci jàmm ndax ñoom ci ah. oto bi ñu ngi jàng seen tey siir ah. ñu ngi jàng seen ajur amaana yar boobu dafa am solo. sofër yooyu ñu ñaanal leen te encouragé leen. moom daal gàmm gi daal lu matale la rek moom la xëyee. Ah, moo tax lépp kenn mun ko wax waaye daal ñu bàyyi ko ci ci sunu euh, euh, <laughs> xam nga ñi nga xam ni ñoo daloo gan ñi ci Tiwaawan. waaw ah. waa Tiwaawan ñi daloo gan ñi yaatal seen dënn. xajoo gan ñi. <laughs> nee naa sax démb naa Maodo Mbaye man de naan naa fa café goo xam ne daal. mu réew ba sonn rek ma kafe gu kafe gu sonn wuli googu <laughs> waaye itam nu beral nu yéen nun waa enseignement mm-hmm. sunu maire bi mm-hmm. yaay ak seen mbay yaay ak seen mbay bu nu ñëwee day mbég mbégte moo xam ni mm-hmm. <laughs> xam nga moom loolu la xam ne yaay ak seen mbay ak waa këram ci leen yar ñoom ñëpp ñëw nuyoo ndeysaan naanu koog ñoom sunu mbokk yi nga xam ñoo ne seeti ay lay jéen di ay sang ñoom soxna faama soxna faama kët ah soxna ndey ko ma jé jéene ko yar hmm. man maa ko maye doona jël président présidente may ko suñu président hmm. ah a tayibaatu li tayibiina maam loo hmm. kon gàmm gi wax dëgg yàlla yal nañ ko yàgg a fekkee te it yàlla di yokk suturaam di yokk xéewalam yokk kaaraangeem réew mii yal na ko sàmm ci sàmm ñu ko dëkki ba ku bëgg a yàq sax doo mën a yàq. Mm-hmm. yàqkat yi bari nañu de. Mm-hmm. waaye yàlla bu ñu am ndam. amiin mm-hmm. am loqe. macha allah macha allah imaam li mu wax rek moom li ñu waxoon sànq rek ku sañu la gërëm. dangay ngay seede rek. ñu taxawaay yi rafet na. kon waaye lépp rek kenn la. kewal cereem. ŋàbbe ko dëkk ak dëkk. dawali ay oto. tegale ko ba ñëw ni Serigne Moustapha Sy daa jàpp ci gàmmu gi mm-hmm. ka indi ginaaram da see jàpp mm-hmm. ka indi taxawaayam da jàpp mm-hmm. wante li gis nga man li may gën a neex si gàmmu gi rek mooy seede yi nga xam ne ñii ñëw di daan seen doole ca Tiwaawan ñoo koy seede ni ngéej nag yàkkamti waañu sëriñ Moustapha si commencé da ngay gis kuy laajte fan la waañu sëriñ Moustapha nekk jóge fu sore ngir yàlla ak xam ne waañu Serigne Moustapha Sy lay ñëw mhm. pour la mu bëgg mu am ko ah, diiran fukki fanam mu mhm. nekk fa mhm. diiran fukki fanam lekkam ak añam ak reeram di fa jóge te du laal poosam ñooñu ñoo lay seedeel yu tax xam nga boo seedee boo waxee dañ naan ña fa nekk la salaamaaleykum allo ah, allo waa ñu ngi ci yaa ngi Mourchid loo tudd ah maa lay bége bu baax sang bi Mbaye Diop bu Louga. <laughs> imaam ñu ngi lay bége bu baax. imaam allah. ñu lay ziyaar bu wér. ah te ngeen di ndokkeel. waaw dañuy ndokkeel. <laughs> macha allah. ah waay ndokke ndokke leen waay. waa kay ndokk sa wàll Diop. ñu ngi ci suuf ba ca kaw. Mm-hmm. incha ñaan yàlla mu yàgg koo def. amiin mu ci kanamam. amiin amiin. yoon bu ñëw rek ndam li ëpp. amiin incha ah yal na yàlla xeeb loolu te yàlla mottali. amiin moo ko daan ñaane noonu. waaw mm. xeeb te mottali. eh gàmmu gi de moom. <laughs> xam naa ni li wér mooy ixtalafatil ni nga koy waxe mm-hmm. al mafahim taxtalif mm. wal adwaaq la shakk. wal mhm. adwaaq aydan kadalik. waaw ah, dégg yi nii ak guuy. Mhm. wuute na waay. dëgg la wala ndax wax dëgg yàlla. est-ce que. ngeen di wax naan ku mën na def. Mhm. waaw yaa ko bindoon yaa ko man de man de ba ma koy wax xaw ko bindoon. waaw man istata man man iddaa bi istitaain alayhi. faliyaati marha. est-ce que 91 la woon. waaw lii muy def. kuy woote ni man nga ko mm-hmm. bismillah waaye moom waaye moom daal gàcce la mm-hmm. loolu la bayit wax waaye nun de ci sunu wàll mooy wax dëgg yàlla nun daal sami'na xayran waaw wa ra'ayna xayran mm-hmm. <laughs> nuuran wa sururan <laughs> alhamdulillah sururun fii sururin fii waidun duna ayadil uyuni nun noonu lañ ko jàppe yal na yàgg macha allah waaw ah, ah maam ni famu saqimi axi taamul furaati taamul furaati ujaajun fii maskumuna naafiru rayaahi <laughs> nee na lu ndox neex neex ci gimiñam naqari ndax feebar ah. bu naanee ni daa weex mbaa mel nangam moo feebar rek mm. nee lu xet neex neex parfum lu mu neex neex ci soj ba kanam fat yaa tagg neexaay waaye moom du ko mën ah, xëyul dara noonu daal yiw lan fa moom la yiw lan fa dund waaw moom lan fa gis moom lan fa dégg ndax it moom lan doon déglu nag mhm. dëgg dëgg waaye ban fay jóge yëg nañ ni nekk nañ kudul kudul ka demoon ndax yokkute léegi nag am na lu nu lu nu tal ak lu nu talul. Mm-hmm. Ah, waaw mm-hmm. kay waaw. alkilaabu <laughs> tambaax wal tasiir. kon nag yal na yàlla mottali. macha allah yéen ñooñu di ndokkeel. Mm-hmm. ah ñu ngi leen di ndokkeel. macha allah di ndokkeel Mourchid ndax mm. wax dëgg yàlla cey buru woon ak moom. Mm. <laughs> Ah, ah. waaw eh, wax dëgg yàlla daana nekk fukki fan. waaye léegi def nañ ko fukki fan ak juróom jëm ñaar fukk. bi fadli maam Cheikh moom i la. macha allah macha allah kon nag am rafet na ci kan ci ci ci wetu way juróom ak sëriñam. yal na yàlla. jàppale leen bu baax a baax. amiin. te ñun itam li li taxawaay yàlla dimbali ban man koo def. amiin incha allah. barke ah du ma yàggal affaire bi ndax daa ñu ngi wax am na solo. <laughs> kon ñu ngi imam. di siyaare soxna su baax soosu ngeen invité. soxna Khady Niang bu baax soxna soxna Niang ci affaire bi di nuyu Oustaz Niang jaar Oustaz ko ci yow. incha allah allah. jazakumullahu xeeran jërëjëf imam <laughs> ñu koy nuyu di nuyu waa Louga ak waa Topp bi yëpp moom suñu soppe la suñu imaam la yal na yàlla yàggal taxawaay bi ci magu royukaay yi la bokk yal na yàlla sàmm di nuyu soxnaam soxna nuyu soxna Fatou moom ndeyu daara pire la moom. Mm. yal na yàgg waaw soxna Fatou Dia moom moo jur ñëpp. Mm, mm. mooy ndeyu daara yi daal. moom de Tiwaawoon a ngi noonu. Tiwaawoon woote na. sang baa ngi Tiwaawoon ku jub soxal bismillah pexem mbindeef du ko tas. macha allah gis nga ñooñu nekku ci. tey seede imam mm-hmm. ñoom ñoom boo leen di déglu rek. ngay xam ki nga amal affaire mooy mm-hmm. kap mm-hmm. ndax ndegam nag ñoom ñooñu mm. ndegam ña ca walandoo ba daanu ca teen ba mm. masaag ña ca pind ba ndax sëriñ Pape Malick da doon wax mm. xar mi mucc romb la di dem nga ne ay waay xar mee rafet du yem ak ki xar mi ratt meewam jox ko mu naan waaye ñooñu seede nañu ci sëriñ Moussa loo xam ne day wane ni kii benn soxna da koy wax di ko wax ma ne ko c'est parce que mu ni man damaa jaaxle ndax fii ba fële lim ca ginnaaw course ba ak fa jaaykat ya tool mu ni waxatuma léegi ñun ñu ñëw di wut si mais dañuy yanu sax indi nu seen a ngi noonu ma ne ko parce que mooy bàyyi ñëpp mooy bàyyi jirim yi mooy bàyyi doxandeem yeeg mindaafan mm. yi ñëpp mm. parce que li ko fi yàlla bàyyeel mooy mu dundal mm. ki nga xam ne yàlla da koo teg pour mu dundal nag borom bakke nag bàyyi ma yeeg ñanaaw yeeg ñëpp ñoo seede parce que mooy xalifatullah nekk gi mu nekk xalifatullah moo tax su gàmmoo ah, ñëpp gàmmu ñu siiw gàmmoom parce que li tax ñuy siiw gàmmoom mooy gàmmu yi dafa nekk gàmmu ci biir gàmmu yi mm-hmm. te li imam Malick Mbaye waxoon man dama koy waxaat toujours di ko répété fu ñaata junniy nit teew ci Sénégal gii néew na xam nga ñoom imam Samba dañoo dem libi <laughs> fanweeri nit lañ. Mhm. ñu tegal leen seen xaalisu cigarette. Ah, <laughs> budget bi budget bi. ba dellusiwaat fekkaat fa ñu delloo ko noonu. Mhm. mu ni yéen ay ñan ak ku leen yar. Ah. ma ni ndegam nombre boobu kese demoon ñoom mm. ñu yéemu ci naar ya ba bind ci ni lii mësta am Sénégal. Mhm. ma ni nga ñëw ci course bi ñaata junniy junniy nit. Malick Mbaye ne ku fi daanu te mégo cigarette di la faj doo wér. kon wane na ni daf koo liggéey si mm-hmm. Malick moo tax ku mën na def mm-hmm. imaam slogan bi wéet bi te siiw mooy ku mën na def dëgg yàlla mm-hmm. Ah, nga solo de waxtu baa ngi ñëw <laughs> ah xam naa gu mujj rek ah, di ñaanal kër gi yàlla yokk leen ba ñu yëg ko ci barke yonent bi mm. sallallahu bu ñu fi ñëwaatee ñu fekkaat kër gi gën a modéré si barke yonent bi yàlla defal ko kilifa kër gi mm-hmm. ah defal ko tam ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi mm-hmm. ah di ñaanalit mbokki pas-pas yi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal yëpp oustaz day wax ni bul ni mbokk pas-pas mm-hmm. deel wax sama mbokku taalibe boo nee mbokk pas-pas xamoo lu mu fas ah, kon ñuy ñaanal mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañ ko bokkal yëpp di ñaan yàlla ba gàmmooti ah ñu ñëwaat rek ak gàmmu ñëwaat ak suñu mbégte delluwaat ak suñu mbégte di ñaanal itam ñiñ fi fekkit ñu leen di ñaanal ñu leen fi fekk ak seen mbégte bu ñuy delloot bàyyiwaat leen ak seen mbégte di ñaan loolo rek si barke yanant bi comme naka maam seex waxe woon rek du dog du dog boobu abadan waaw ñuy ñaan loolu ñaanal ñëpp di delluwaat nag di nuyuwaat su suñu ustaas bi bu mm-hmm. baax a baax mm-hmm. a ah, di ko ñaanal yàlla comme ni ko soxna Roqaye waxee yal na ko yàlla may ñetteel bu baax a baax ci barke <laughs> yonent bi ah di ñaanal itam soxna Roqaye wax dëgg yàlla <laughs> yàgg na daal kon lu yàgg dëgg la ñi ngi ñaanal soxna Roqaya taxawaay bi rafet na ñu ngi kontaan si moom di am mbégte lool wax dëgg yàlla ndax it gëjëwoon nañu gise ah, waaye mel na ne gëjuñoo gisante ñoo ngi ciy ñaan bu baax a baax di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu ñu bàyyee tam mm-hmm. ah bu bu rek mm-hmm. lii ñu def ñoom it ñu mën koo def ñëw fii teew si mm-hmm. di ko ñaanal ñëpp rek di leen ñaanal yàlla ñaanal sëñ Fall mi nga mm. xam ne moom xam naa ni <laughs> daa yaakaar ni ceeb a fi nekk moo tax mi ngi tendee far rek waaye fii daal <laughs> nii la demee ñu mm-hmm. ñaanal ñëpp yàlla rek wax dëgg yàlla jërëjëf kay ñang ah, mm-hmm. ah, ñoom oustaz Babacar ñoom bu Italie mm-hmm. ñoom oustaz Abdoulou ak sunu bokk yi fa nekk yëpp te taxawu daayira bi yàlla taxawu la ñoom itam ah, weesu Euh, Serigne Cheikh Tidiane Sy mm-hmm. bu googi Maodo Sy bu Alaaji Abdu mm-hmm. moo bind lii si Moustapha mm. juin 2015 mm-hmm. moo bind moo bind xasida bi mm. ni si hani an Cheikh moo ko bind mm. hani an li daain mursidin jaddada al asra ne mm-hmm. maa ngi ndokkeel mm-hmm. Mm-hmm. wootekatu yàlla boo xam ne moo beesal jamono ba jamono yàqoo moo jóg waaw hani an li daain mursidin jaddada al asra bi jaamiatin adhat biha kulluna yaqra ne si Moussa moo fexe ba nun doomi soxna yi léegi ñëpp a ngi jàngal ñëpp a ngi jàngal dem ca ba naan radina bikum yaa daa'iya al asri mursida radina bikum yaa daa'iya al asri mursida wa fusna bikum fi zilli xidmatikum faxra ñun daal dañoo accepté dañoo accepté te nangu ni yow rek yaay mursid ci jamono boo xam ne yaa man defar jamono te nu am mbégte lool ah, ak fierté ci ñëw jàpp ci seen liggéey. ku wax na leen ku wax na leneen. Mm-hmm. toog ci sa keppaar. kon wax ji nag. Mm-hmm. li am solo mooy. Mm-hmm. jëf dëgël ko rek. bépp kàddu bu rafet bu ko jëf dëggalee rek. moo am njëriñ. kon nag yal na yàlla may ñu rek ñu gën a am sincérité. amiin ba duñu parparloo. lu rek ci kii ba. maam doxee ñu ngi jaalee sunu mbokk mi ndeysaan euh, yaayu sunu mbokk ma. Euh, Khalifa Ndoye mhm. rahimahullah mhm. yaay ji moom faatu biig mhm. ñu ngi koy waajal nii soxna Mariama Diagne ba ci gël tàppe ah. yal na yàlla yërëm ñëpp ak itam mbokk mee ca Alaji te mooy Papsi Papsi goro ci mut waaye ñu fa teewoon ñoo nu fa teewal benn la ñooñu fa la ñaanal ñu jot. Hmm. ay njaboot lañu yal yàlla gëstu nañu yërmande. amiin yàlla seral seen gannaaw. xam naa daal te ah, tey dañu doon ndokkeel rek. Hmm. di am mbég lool lool ci tooyaayu soxna hmm. dañ fi invité woon doom ja. Safi du maam Safi. non Asi. moom ma nga wàllu médecine. def waxtaan am solo tey nag yaayam nañu invité. <laughs> moo tax fii lew na leen doom. Eh, noo ngi nuyu ñëpp nag. Mm-hmm. ñu sori ñu jege. Mm-hmm. parce que daa bari ñuy woote naan nangam naan. Mm-hmm. Euh, euh, sunu imam ba nuyoo na imam Fall. woo na bëgg dem ndeysaan mooy doon ku baax. Ibrahima Fall. ñu ngi lay laaj li ma nuyul ma maam Roqee ma incha bu yaatoo dañuy ñëw. waxtaan ci yeneen yeneen domaines yi. kon nag maam gàmm gaa ngi nii. ndokkeel nañ ci ñëpp gannaaw bi ñu ci ndokkeelee sëriñ bi. ndax ñi fi nekk di liggéeyal yàlla yàlla xam na leen. yal nañu ko yàgg a imaam. ndokkeel gaa ngi noonu gàmm gaa ngi noonu. macha ñu doon taasu rek. ci mm-hmm. barkeem. Mm-hmm. ndokkeel góor gu tedd gi Cheikh Seydi Mouhamadul mm-hmm. Moustapha ñaan yàlla sàmm ko wattu ko. la dof ba waxoon rek yal na yàlla mucc bu yàlla muccee ñun ñëpp mucc. waaye Ségi Faagay Demba mi ci jawaar yal na yàlla sàmm la mm. yal na yàlla aar la yal na yàlla taxaw la waaye sa joxañ bi yal na ko yàlla wat yal na yegg ni yoon yal na ko mm. yàlla sàmm yal na ko yàlla sargal mm. ñun xiifuñu bay wuti lu ñu lekk mm-hmm. ñu bay wuti lu ñu naan mm-hmm. sa ween wi doy na la oustaz Njawar waxoon kër goo fi dem mm-hmm. lëg la rey mbaa naat du suur ña mu am demal këram kooba piir la fel mu jaaxaan kon ñun si Malick yal na nga dund yal na nga wér yaa ku la sopp ak ku la am ak ku la bëgg am ñi la soppul sax sa ñaq la ñuy jariñoo ñi la soppul sax ci yow la ñuy dundee ñi la soppul sax bu dul yow duñu nekk hmm. ndax ki ki bind ci yow sax pour dépense am hmm. bu la bindul du añ du reer hmm. kon si Malick Fawad sa sa tabe gu yaatu gi sa yërmande bu yaatu bi sa xam-xam bu matale bi bi nga xam ne ku bëgg jàng ku bëggul jàng ku mu neex dégg ku mu naqadi dégg mhm. parce que da ko saawaanal tasaare ko ñëppay jariñu te leer gi ñëpp lay mbëkk gaaw a ñëw ak bañ a ñëw yéex ñëw wala gaawantu ñëw li imaam wax rek xelu ñëw mbaa xelu ñëw jekki bay xelu di ñëw nag xelu mm-hmm. ñëw a ko gën kon yal nañu yàlla xiir ci ñu nangul ñi yàlla mm-hmm. may te yàlla may ñu xol bu féex mm-hmm. bu nangul ñi yàlla may te fu joxañ bi nekk ñu topp ko ba ilaa abadal abidin ñi ngi sant ñëpp di sant ñi taxawu ñëpp yal na yàlla kàttanal ñu feer la ci ñun mbégte la ci ñun ñuy daw ci ëttu ci ñàkku ci ëttu Serigne Moussa damay wax ku mën na def imaam waañ boo xam ne guddi àjjuma jot ñëpp lal basang di jàng taysir kenn yorul taysir ñëpp jàng allahu hasbi ñëpp di rëkk xilaas ba mu tàng jër ñu def seeni tem ku mën na def ku mën na def dajale ay junniy nit ñëpp soppante ñëpp bëggante ku nekk di fàttali sa morom ban aaya ban feq ku ne di ko jongante di ñulu gi cin di jëkkante bëyit yeeg aaya yi ku mën na def <laughs> génn ci mbedd mi yaatal ñëpp uuf ñëpp jox ñëpp ñu lekk jox ñëpp ñu naan si Malick Fawad ku mën na def kon gàmmu gi ruuxiyan mm-hmm. saqaafiyan mm-hmm. yan mm-hmm. lépp la boole macha allah yal na yàlla laf cat bu ci kàddu jubul woon sax kon cat topp la si Malick Fawad yal na yàlla laf cat ñu ngi nuyu ñëpp imam xalifa <laughs> Babacar Dieng nee na sa wëllëre la ca alaaji paate dëgg la de waaw waaw waaw. ñu yàq moom bu yàgg la. jeng la sant nag nee na moom bëggul ko tudd turam xam naa ni moom. daañ ko tudd daal sëñ Babacar Khalifa Ababacar Dieng kenkaa yéeri ca alaaji Paate ah, waaw waaw nee na naa la ko wax nee na waaw nee na moom Imam mbay la gën a miin <laughs> waaye nee na sopp na la kon ñi ngi koy nuyu bu baax di ko di ko ñaanal taw feex li imam wax rek ñu jaalee suñu mbokk moomu Pape si di ko jaalee soxna Ndey si mm-hmm. ak soxna Sofi bu baax seen nijaay ji jiitu mm-hmm. yal na yàlla teeru ko ci yërmandeem mm-hmm. seede ya fa taxawoon rafet na yal na yàlla fay leen yiw waa Grand Dakar yi ñëwoon nag ñëpp ñoom maire Anne ak ñamu àndaloon yëpp adjoint maire ba adjointe ba waaw ñoom ñëpp ñëwoon nañ yal na yàlla fay leen yiw soxna xade ñu ngi bëgg ci invitation bi mm. <laughs> lu yàgg dëgg la yàgg dëgg la aji jàpp góor gi Ahmed Ñange yal na yàlla yokk leeram moo doon wax mm-hmm. aji jàpp judul bàyyi mm-hmm. aji yaakaar judul xaat faaw yàlla may ko li muy yóotu yal nañ ko yàlla may mm-hmm. wax na ko léegi 40 ans ñoo moom ca ca temps cellule féminine ya di waajal jumaa Serigne Babacar Si ñoo ngi moom ca paanu beñe ya ñoo moom ca fóot ba di fayeeku pour versement mm-hmm. yooyu yëpp wallaay eh, léegi la koy wax rek ma ni ah Serigne Moussa kenn mënu koo fay mm-hmm. tey ku jóg di yëngu rek mm-hmm. yàlla moo la moo la tette ci loolu waaw daan wax métier du dof mm. ni tey dof ca kaw métier am wallaay loolu lañ daan gàddoo suñu paanu beñe yi kon yal na yàlla yàggal taxawaay bi ñu ngi sant di gërëm di ñaan yal na yàlla téyel ñu pas-pas eh, ren nag tey nag kii bi ku nekk na kontaan xam nga faa leen yi dañ fee dugg mm. faaleen yi di yore caméra yi faaleen bi jaawale mburoom dugg fi ñaari yoon may wax muy lijjanti ñun fu ñuy nekk mais moom moo jaawale weere waaw li may nuyu waa joxoor yi woote yëpp nag bég si ñoom lool di ñaan yal na yàlla sàmm leen waaye tey dafa neex daal ndax imaam tey dafa am fit osé ne nañ ko ñaaneel ñetteel loolu moom na si ñëpp ñaan <laughs> te ñi joxoon liste bi pour rang nañu préparé jege si <laughs> ku jege ñii dugg troisième ñii dugg quatrième ñu defandoo ko rek benn yoon parce que xam naa su fit <laughs> bii rëccee bi yoon kon ñeenteel bi day dëgër mais gaaw leen profité rek liste yi ñëw ñu woo imam Mbaye mu def ko ci <laughs> ñaanal te dugal si ñetteel bi ah, maam wax kay jërëjëf mm-hmm. eh, ñun bu nekkee fii dañu mel noo ngi àjjana mm-hmm. wallaahi ndax ku ne sax nag aw yow rek nga ëmbal sa morom mm-hmm. lu neex la kilifa gi moo ko def ci Euh, dañ ne nag wala fi mu nit boo ko rawee ak jëf. Mm-hmm. mu bëgg laa dabaku dabaku lamiñ. Mm-hmm. waaye du sotti. Mm-hmm. maam Roqee bu ñuy ndokkeel ñëpp. nañ ci beral nag. waa sécurité. waaw ñu doon sécuriser nit ñi. ba kenn du gaañante. mën a xàll yoon yi. danañ ko yàggatal. nañ ci beral waa sécurité. waaye nag mais bu ma mujj tudd mooy. Mourchid xam ne lépp ñëpp la mm-hmm. dafa am weef mm-hmm. weef boo xam ni bu business la fooy mën ci nekk rek mën nga cee participer mm-hmm. loo mën jox nu mu toll boo ubbee sa weef rek da bés ci fi ñu tuddee paiement bés ci rek da ngay gis Mourchid TV loo fa envoyé dañoo ci kontam directement loolu nag xam ko baax na. ziidoo fa siidoo. waaye boo ko xamee ba pare nga jëf ci nag mm-hmm. baax man nag jëf naa ci. Mm-hmm. jëfati naa ci. Mm-hmm. kon nag sañ naa soññi gars yi jëf leen. macha allah yal na yàlla mottali yëpp. ah kon nag nu jàngal hadiya jox Seydina Mouhamed borom yëpp borom yëpp. def salaatul fatih julliwaat ci moom rek. sëlmal ci moom. ci mbaaxu Cheikh Mouhamadou Moustapha. yal na yàlla dolli sutura. amiin yaa rabbi amiin xéewal. amiin zahiran wa baatin. amiin.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 alhamdulilahi rabbil alamin